asalaamaaleykum fidèle internet bu Adiana TV ñu ngi leen di waaj a tegal waxtaan bu ama am solo boo xamante ne bii mu ngi jóge ci eh, borom xam-xam bu am am solo nekk sët ci xaadim rasul nekk ki ngeen xam bu baax a baax am naa nag duñ ci duñ waxagum kan la dañ leen di bàyyi ngeen déglu ba pare bu ko defee ñu dog leen indil eh, ay wax yi nga xam ne day tax a mucc ba am yiwu àdduna ak rawante na wërsëg lewa lew a lew mu ne bokk na ci yooya julli gi yor yor samonté julli gi yor yor yonante bi nee na day tax la am wërsëg ak ñàkk gu bokkut yor yor itam non la mel mboolem julli fi lay lo ci di samonte mom rek day tax nga tagok ñak bari le wërsëg lu bokkut ak nag tuyaabay alaxira ja yenen bi neewon abu hurayra del farlu ci julli te diko digal sa wa kër ndax bo farlo ci julli te diko digal sa wa kër ngeen bokk di sàmmonteeg julli juro ak xéti julli yu naafile yi yàlla da andil sax fogo ko won yaak sa njabot patay bo bari wu lew fexel bu wut ay gatt muy xar muy bëy ndax addis ba nee na gàtt boo gis rek yàlla def na ca barke barke nag moom day loo xam ne du jeex lu amul barke nag lu mu bari bari moom daanaka lu jeex la ba noppi boo dee xool kitaabu Nuurayni wax na fa ne ku jàng suuratul Muzzammil muy yaa ayyuhal Muzzammil yàlla dàqal la ñàkk fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira wax ñu nag lim bokoy janggu jang xana kon manes nako bari la jang rek kon bokku na ci tax bari sugu lew nga farlu ci sa yo duggé sa kër rek dal jang fatiha tek ci qul huwallahu tek ci ayatul kursi tek ci saru qariha al tu mal qariha tek ci inna ansalnahu lo takko ko sa yo dugg sa kër rek nga jang yooyu le dana tax yàlla fidèle internet ngeen doon déglu sànq e, defe naa ni jarul sax di présenté ndax mooy sëriñ abdourahman e, ibnu sëriñ abdou xuddus ibnu maam Cerno Birahim e, sëriñ abdourahman kenn xam na ko ci farloom ci diine mën nañoo ni téere yu bëree bëri firi na leen téere yi nga xamante ni bii téere xam-xam yi ñuy faral di jàng ci Sénégal fii nii daanaka mën nañoo ni firi na téere yooyu yëpp ba risaala firi na ko téere yi nga xamante ni mooy sëñ bu mag bi moom moo leen bind yooyu moom ñi ci gën a siiw yëpp tamit firi leen ba pare nag boole ko ay biir yoo xamante ni bii da faral di def moo xam ci ay kele USB la koy def pour mbokk taal bépp jot si yàgg na sax di ko clé USB sax di bëri si ay CD la ko doon def eh, mu doon kon jàmbaaru islam nekk kàngam boo xamante ni bii eh, lépp loo xamante ni dina tax rek dund doomu aadama bi yëben ci àdduna ak àlaxira ci lay nekk mu doon ku takkoo ak chariatul islam doon jëmm joo xamante ni dafa sell lool macha allah eh, doon koo xamante ni bii tamit dafa am yitte lool ci daara alquran looloo tax looloo tax Eh, bari na ay daara yoo xamante ne bii tey moom moo leen tabax ibbi leen ba nit yi di fa jàngee di mokkal alxuraan.